waa li ñuy dégg mbokk taalib yëpp rawat na mbokk jullit yi ndax màggal tubaab ñëpp ko bokk mooy ñu xam ni kuy ñëw Tuubaa na nga jiital yéene fas yéene yéene ñëw santale sëñ tubaa santale la ko suñ borom ci bisam bii ndax sëñ tubaakat kat li mu waxoon mooy na ma ñëpp ñëw santale ma yàlla ci bis bi kon nag day mel ni kuy julli rek ab jullit lu muy def rek yéene la ci war a jiital kon na nga dogu fas yéene ne man de ren fas yéene naa dem màggali fas yéene naa sant yàlla suñ borom sëñ Tuubaa ci bisam bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar rawat na rek màggalu ren jii nga xamante ni ku ne xam na ni sëñ Tuubaa mi ngi fi jóge woon euh, muharram 1346 mille muharram 1346 la fi wàcc wàccoon liggéey ci njaareem ren mu nekkaat muharram 1446 maanaam sëñ Tuubaa ba mu làqoog léegi ba mu fi jógee mu ngi soog am téeméeri at kon ba mu làqoog léegi ndigal gi mu joxe woon war nañ ko defareen defin goo xamante ni euh, day mel ni dañoo nekk ci wetu sëñ Tuubaa di ko def kon ñuy wax ñëpp ñu ànd koog yéene te kuy ñëw xam ni lay liy cant gi moo di li suñ Saaliw bu Mbàkke waxoon rek mooy la it sakkarta azidannakum suñ borom moo wax ci alxuraan ku sant ma dolli la moo tax màggal gi lu ci waaye def boo ci dee day mel ni bal tàng si boo dóor ci miir rek boo ko dóoree day dellusiwaat delluwaat ci yow kon ñoo xam ne bisub sant yàlla la bisub dellu suñu suñu suñu xel suñu boroom la ñu ànd ko tuub bernde gan yi ndax bernde la ñuy wax li dala ci ginaar ba ci gëléem di ñaari keef yi waaye ñu xam ni bisub jàng alxuraanu karim la jàng xas xasde yi ku mënta fer iji sax mel ni man nga yore euh, kurus wala loo mën a wér de di wax laa ilaaha la wala ay istixfaar lépp ñu sant ko suñu borom. waaw loolu euh, li ñu ciy wax mooy la sëñ Fallou waxoon rek euh, code de la route yoonu murid laa ko tudde woon maanaam màggali li am solo mooy na nga egsi ci jàmm ak salaam xam nga di njëkkante ci yoon bi léeg nga gis ñoo xam dañuy rawante wala di ku ne di bëgg a sa morom naan maa ngi départ heure sàngam sàngam laa jël laa laa egsi maanaam du loo xamante ni li am solo rek mooy na nga egsi ak jàmm ak salaam jëfe ndigal gi delluwaat ci jàmm ak salaam. loolu li ñu war def nag mooy li tubaab naan nañ ko defe ci yar ak tekki discipline te code de la li ci njëkk rek mooy discipline ku nekk na nga dox daw ndànk dal ndànk bu ñu ko defee Touba moom yaakaar naa yoon yi mel na noo xamante ni boo ko dawee gën gaa yàgg ñeenti waxtu wala ñetti waxtu bu amee embouteillage sax di nga egsi kon ñu ngi ñaan yëpp ñu ànd ak dal euh, respecté bu kenn dublente bu jéem naan damay jëkkanteeg dégg jaru ko loo xam ne nag loolu nag buñ ko mënoon tudde ak sax. dañuy mën a wax ne ndigal sëñ Muntaxa la ndax moom day koo xamante ni euh, jàmm da koo yitteel te fi mu toll nii jàmm fi muy fi muy demee mooy ñaan ñaanuñ ko yàlla buñ ne woon accident am na wala leneen am na loo màggal màggal màggal màggal rek sa xel daanaka day dem daanaka sa xel du dalati loolu nag nañ fexe kon daw nànk euh, ñu ñu bàyyi ci xel xam ni li am solo moo ñu dem ak jàmm egg ak jàmm kenn bañ a màgget waaye benn yi ni koy waaja mooy euh, ndax. màggal Tuubaa ñun murit at baat lañ koy waaj mu am naa ci benn xarit boo xam ne démb rek laa mujj këram nga xamante ni moom su ma la xee la muy yar ay kanaara lay yar di lu lu lu lu loo xamante ne xorom na sax waaye bu màggal ñëwee safar gi lay rend yëpp def ko defin boo xamante ne buñ la ko defalee bi su màggal da nga lii sax du kanaara nga xam ne nit ñi murit gi yematuñu ci benn ci diggante ganaar ba gëléem waaye lépp luy loo xamante ne lislaam daganal na ko ñu war ko lekk rek ñu ngi koy waajal te léegi niñ koy defee noo xam ne ak frigo yi am duñu xaar lu bis ba am na ñoo xam ne ko defar balaa boobu ndax bisu màggal gi xat yi xat xatu gan yi ak taxaw nit ñi ak nombre bi ngay bëgg a defar doo mën a defar yëpp a doon am ñoo koy defar laata bis ba bu dee yi nga xam ne xeetu rendi la ak yooyu bu bis baa wala bu nee suba la ñu mën ko rendi euh, loolu tax nag berle yi ñu koy waaj ci fànn yëpp boole ko nag meññant yi moo xam xeetu fruit yi moo xam xeetu naan yi tamit moo xam jus local yeeg yëpp ñu ngi koy waajal ba ci sécurité ba cure-dent ba ci socc bëgguñu lenn mu ndax gan moom da war a fexe booy ba booy benn rek nga fexe nit ki lu mu bëgg rek na ko am mbaxal sax su ko bëggee fexeel mbaxal am moo tax xeetu pigeon yëpp ñu ngi koy waajal def ko defit noo xam ne xam naa ñu sant siise moom moom buñ déggee xeet yooyu dinañ gën a sawar ci ñëw ci màggal waaye ñii raas déem xam na olof Njaay da naan ñii màggal si ak ñii raas déem bokkuñu loolu raas déem nag bu ñu koy wax waxi olof la mooy ñi nga xam ne dañuy ut si tuyaa waaye am ñoo xamante ni safaan ba la ñuy ut si dañuy ñëw ngir sàcc wala wala ñuy tafu wala ñuy yakkataan lu ne lañ fi am dafa am ni ñoom dañoo woyee di waaye jàpp naa ni dëkk bii bu ñu xoolee naka sëñ tubaa sance woon nekkoon àll nga xamante ne gayndee fi la fi fekkoon ni ko sëñ Saliou doon nettali nga xam ba muy bind Matlabul Fawzayni mbaam àll bi di di dàqi gaynde bi di ko dàqi ba mu ñëw di làqatu ci gannaaw sëñ Touba ci mba kër sëñ saalu gii la woon ku seetlu sëñ Touba ni nga ko sance woon na xam ñaan suñ borom ci xas dëgg Matlabul Fawzayni mu doon dëkkub jaamu yàlla dëkkub dëkkub teraanga dëkkub xéewal ku fi ñëw rek boo doon def safaan bi sax boo ñëwee fi war nga koo muñ war nga koo muñ bàyyi ko ngir wormal loolu ba bu weesoo sax ndaxte sëñ naa leen jox tey lu doy waar ci berle gi loolu sax ci berle gi la waroon dugg waaye mën nañ ko méngale grâce diem sëñ fàllu dafa am at boo xamante ni màggal gi bu mu saan weesu dafa am ñuy ñëw ci moom am ko ne ko sëñ fàllu de màggal gi ñu naan ko neex na lool am ku jóg ci ndongo yi ne ko ah, sëñ bi dafa màggal gi neex na waaye weñ yi ñoo ko yàq mooy weñ yi di naaw weñ ko ne xam na ne fu mu bëree sukkër wala ñuy ñuy lekk ak lu ñuy naan rek lu saf sukkër dañ fay dañ fay bëri sëñ Sall sëñ Fall ne waa baax na bu màggal gi ñëwatee na ngeen ma ko wax si ba màggal gi jub see ñëw wax ko sëñ bi ne leen jàppaleen ma benn benn benn benn benn weñ sëñ Fall ñu jël benn weñ mu ne weñ nanga nga xam ne bisub sëñ Tuubaa bi bu ñëwatee boo ko mënta defar neel diis ba ñu ba ñu sant sëñ sëñ santal suñ borom sëñ Tuubaa ba pare nga si nga dellu si waat moo dafa fi ndool li màggalu Tuubaa doo gis sax weñ bu lay sono li ma lay wax ni nag dafa ñu bëri ñu ci bàyyi xel waaye ñetti fan yi doo gis weñ bu la sonal bu weñ doon am nit ñi duñu mën a sax toppatoo yéen ñi ndax xéw li ni ci dëkk bi gannaaw nag weñ moo mën a moo moo mën a muñ yooyu ci te te def moom yëfi boppam la ñun doomu aadama yi war nañu muñ jëlkat yeeg ñi nga xamante ne dañoo doyee di ñu muñ bàyyi yenn yi xam ne bisu sëñ Tuubaa bi loo loo loo doy waar yàq loo doy waar doy waar loo doy waar doy waar war ngaa muñ muñ bis boobu jéem cee jéem a jëf lu baax ndax àdduna kat jëf ju baax mooy tax a jëriñu